mu mel na kon nag sëriñ Abdul Aziz wax na leen li mu leen wax ndax itam sëriñ Babacar si moo ko ni woon demal ca Cheikh nga laaj ko xeeti ijaazaat yi ci tariqa turandoom mu tànn ci bi ko gënal nga bind ko indi ma signé ko nga jox ko ko waaw loolu wëllëre ëpp ko boo gisee Serigne Alioune Gueye rëyoon ci Maodo rëy ci Serigne Babacar Maodo dafa xëy ni ko demal ca Serigne Babacar mu wax la ijaazaat yi naka la ko bëggee nga bind ko indi ko ma signé ko waaw Serigne Alioune Gueye ko bind yépp mi ngeeg man waaw pour wax la ni bu ñuy wéyal ka ca waar wa mu taxul wante mu gën a bay moo tax waaw te it moom Serigne Abdou xam na lu xew ndax góor gi def nu daan yedd di wax ni seen maam lu nekk defal naa ko ko waaw wëral naa ko réew mi ba mu daj maa ko daan wax ñi jub di ko wax ñi jubati xam na ko ci baatin ma wax ko ko ci zahir mu mel ni yooyu lu am solo la waaw